Wolof yi dañuy faral di wax naan ndox bu tuuroo an bàq ci des Nafi Ngom Keïta ak Abdoul Mbaye dàq nañu xalaat bu ni mel ñoom nee nañu ndox bu tuuroo fi rek yaa ngi xel dañuy rootiwaat Walfadjri yéene kay ne gannaaw bu ko njiitu réew Macky Sall ci déclaration de patrimoine bi ñu doon sàkku ci mboolem kilifa yi nekk ci biir réew mi ñu def ko waaye Mamadou Badio Camara mi jiital Cour suprême ak lenn ci jëwriñ yi nekk ci nguur gi dañoo lànkoon ba la yéene kaay xëy fësal ci kàddu góogulee teg ci ne mbicog mbaaloo judd na ci diggante Macky ak Nafi le peuple yéene kaay ne donte la dafa waxoon du saisir waa cour suprême ndax njiit la Mamadou Badja Camara dafa lànkoon du wàccoog li ko waa OFNAC santoon waaye terewul nag bind na ab kayitu clamé jébbal leen ko muy sàkk ñu neenal bi la décision bi mu gis ne jaay doole dëgg lay niru yóbbee soxna mu muy njiital OFNAC mandaawam jeex na te mooy mu delloo njukkal njiitu réew Macky Sall kañ ko ci yoon yu mu jël ngir xeex ger ci biir réew mi Abdou Mbow muy rekadu APR moom di fësal mbetteel gi mu am jëmale ko ci soxna Nafi Ngom Keïta daf ko doon séentu ci avion far mu wàcc ci saret ndax mënuñoo comprendre soxna Nafi Ngom Keïta ak daraja ji mu réew mi nekk ab haut fonctionnaire nekkoon ci inspection générale d'État naka la mën a jëlee ab bataaxal jébal ko njiitu réew Macky mu waroon a yem ci ñoom ñaar kese mu wëlbati ku jël bataaxal boobu le daal koy tasaare ci marché ba ña ci war woon a jot yëpp jot si loo xam ne ni mi Keita mii yeyoo woon na ndombal tànk bi ñu ko tappaloon euh, mi ngi wër di tuumal ñi naan defuñu déclaration de patrimoine ndax moom ci boppam mës naa def déclaration de patrimoine ndax nag wolof dañu ne béy ci say un te balaa ngaa digle ca ngaay na fekk nga jiitu ca las yéene kay ne bu dee moom defu ko ndax bu sukkandikoo ci mbóot yi ko gaañi xamal te ñu siiwal ko nee nañu soxna si dafa daan fayoo ko ñaari yoon weer wu dee dañ ko daan wiire salaire Euh, ñi ëpp ci liggéeykat ya nekk ay mbokkam lañu du moom ci boppam moo jëloon borom këram ga woon def ko muy njiital ISEA ñu ne déetawaay mu jël ñaari doomam yu jigéen ak ñaari gorom yóbbu leen ci États-Unis euh, ñii mu yóbbu leen ci mission permanente du Sénégal ci Nations Unies ñi ci des mu yóbbu leen ci consulat général ba nekk ci New York wal fajiri yéeni kay ne gannaaw ba soxna Nafi Ngom Keïta sulee lenn ci mbóot yi mu leen xamal ba tax ndax société yi ñu tànn ni duñu ay royukaay ci wàllu jikko ak liggéey bu sell ndax Ousmane Sonko patriote la maanaam ku réewam ñor la wala nit la koo xam ne ni poosam rek ko ñor l'enquête yéen kay xëy jox kàddu gi askan wi kenn ku nekk nag joxe ci xalaatam bu ñuy jàppee ne Ousmane Sonko ko jàmbaare la nit ku bëgg réewam la ñeneen ñi ñoom gisuñu loolu yi soo ko am manipulateur la bës rek lay ut kenn du am bës nag bu weesu njiitu réew mi ñu ne duñu xëy te duñu wax ci moom mbaa ñu bind ci moom misaal gi moo di gëstu yaatu wi ci gàkk-gàkk yi ñu gis ci Macky ak nguuram gilee Ibrahima Bakhoum di ab taskati xibaar nekk di ab jàngalekat ne gàkk-gàkk yi bi ci jiitu moo di wax waxeet gi mu def jëmale ko ci mandatam Macky dafa waxoon ne bés bu ñu ko falee di muy njëkk def mooy wàññi mandatam jële ko si juróom-ñaar at indi féete ci kujje gi muy kàddu yi Pape Mayel Thiam administrateur bu APR weddi ba tëdd ci naaj wi gaa ñi dañuy wër di wax rek di laaj loo xam ni daanaka teguñu ko fenn waaye Macky Sall la mu digoon askan boo xoolee li ci ëpp def na ko misaal gi mooy fukki milliards yi mu génne ci gafagaam jox ko ndaw ñi ngir ñu am ci lu ñu jàpp Le Soleil yéene kay mu ngoog vacances citoyennes door nañu ko démb ca Guédiawaye ci tiwaayu Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci gàddoon ci ndaw jafe-jafe yu tar moom la ñuy jànkonteel ñoom liggéeykat yi yëngatu ci wàllu yoon ba tax ñu fipp ni dañuy dem gréew Walfadjri yéen i kaay gannaaw ba ñu ñetti fan yoo xam ni nguur gi faale wu leen surtout muy syndicat gi ëmb liggéeykat yi yëngatu ci wàllu yoon delloo waat nañu buum ca boy boy ga dañoo xëyee créé waat yeneen ñetti fan yoo xam ne duñu ko liggéey muy lu ñuy xal di làbbali ba keroog nguur gi rawatina dénk wàllu yoon ci nguur di nangoo wax ak ñoom ci jamono jooju lee nag ndongo yéen nekkee ca fac science ñoom ña ngay créé ab grève bu ñu amulul app dem naa ca làmb ji wax ci combat gi doxoon ci diggante Modou moom Modou Lo nag wax na ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naatango yi nekk suñu làmb yéene kaay moom xarañ loo nee na daan gi mu daan Gris Bordeaux bett ko benn yoon ndax lu mu gëmoon la kantaan ki mu war a dajal ëllëg ci làmb ji moom Modou Lo nee na mi ngi koy bàyyi ci loxo amateur yi ndax ñooy xool combat gu neex ñu wax ko waaye lenn moom nañu ko xam bàyyiwul kenn ku ñu ko jox rek dina bëre moom